ngi en en en deux jours mille deux personnes non malheureusement mais est-ce que loolu tamit malheureusement manque d'espoir mais non bu mais il y a xam bonne affaire le Sénégal n'est pas un pays développé Selon la France la ay ndawam di dem mhm. on doit pouvoir se dire mais qu'est-ce qui se passe le Sénégal c'est un pays en voie de développement en voie de construction mais non, est-ce que dans le xel ay ambition il y a une pression sociale qui s'exerce sur eux malheureusement boo amul liggéey dañ lay xool dañ lay dañ lay rejeté dañ lay xeet dañ duñ la boole ci dara tey it loolu njàmbaarte la gis nga sa yaay wala sa papa wala mu nekk ci situation xam da nga ne man maa war a euh, dag bu mu gàcce gi mhm. ah amoo pexe nga dem mais man damay jàpp ne dem boobu du dem bu rafet c'est risqué mhm. et et amul mucc cest à ñi jël gaal gi yëpp ñi fay dem boo demee France tey di gis boo demee ci yenn pays États-Unis et cetera di nga gis ne ñoom ñoo ñu gën a ñàkk liggéey mhm. ñoom ñoo ñu gën a ñàkk liggéey maintenant est ce que nag kum toll ci situation mën nga ko ne bul dem bon liy war a état war a jël ay matuwaay mooy def de telle sorte que ñuy dem dans des conditions sécurisées oui ñu am visa et cetera loolu aussi il faut état yi waxtaan si ak il faut aussi monsieur le ministre ñu ñu def maanaam teg ay politique yoo xam ne dañ leen fii téye d'accord loolu aussi c'est politique d'emploi parce que ndaw tam moom mooy moom ëllëgu réew 70 de la population est jeune parce que les gens dem en général ñu 50 pour cent wala plus de 50 pour condition de vie non parce qu'ils ma pas d'espoir non et puis aussi on a ne ci 60 pour eu un bon taux il y ne ñu ngi liggéey attention quand tu vois le phénomène da ngay gis ko 500 millions 1 million wala 200 millions parce que da nga ko de ba paradigme, dem da ngay gis 2 millions parce que da nga ko que ci même. Tu ci nous liggéey soog a dem. parce que liggéey nga kon donc ça veut dire que liggéey nga quand même ci secteur boo peut-être loolu de la doyul il y a aussi l'attractivité des, des, des, pays européens sur, sur parce que l'on aussi moo ko c'est-à-dire c'est une cette forme de colonisation culturelle pour wane ni ñoo leen gën rafet ay dëkk ñoo leen gëna a baax ay dëkk santé bi fi la gëna a et cetera et cetera attractivité bobu di nga gis ku nekk fii di liggéey bàyyi fi liggéey bi pour dem pour dem Europe donc il faut faire attention mm-hmm. c'est vrai que maintenant nag on a une population jeune on doit davantage mm-hmm. je l'ai dit moi à l'Assemblée nationale davantage faire attention adresser le maximum orienter le budget au maximum vers la jeunesse mhm. pour que nous nous formions ñu am formation professionnelle emploi am hmm. employabilité ñu entrepreneuriat jeune hmm. et cetera ça on doit mettre l'accent hmm. malgré les efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal on doit accentuer les efforts clair nga xam peut-être bu ñu mënee jeune dootuñu mais da nga gis koo xam ne tey yaa ngi mais bu la ne woon dem poste Europe da parce que l'attractivité là, donc ce n'est plus un problème de développement ou voilà dañu am am na ci fond bi moom am na fi am na ay jeunes yoo xam malgré le le phénomène de Jakarta mhm. les taxis privés etc c'est di nga xam de Sénégal je ne ñu pas accompagner la mhm. maintenant nak parce que vous n'avez ci pays bu melni Sénégal nek un pays en voie de développement mhm. mooy pas faire face ça c'est l'une des caractéristiques des pays en voie de développement on ne peut pas faire face aux préoccupations de manière